mooy président moom ma dugal ci liste bi. Mhm. donc ñoom dañuy toog rek. Mhm. ah président woote na de lu pale wax noonu la ñoo dundee. Mhm. léegi nag dans le discours dañ naan non vous savee ñun nous sommes là pour le peuple loolu c'est de façade. te réew mi toll na fa nga xam ni jamono bii xanaa xamoon ni tey. pourtant ki ëpp chance ci Sénégal xam nga kan la. malgré tout de nee kan la. kan la. président Macky Sall. <laughs> yow tamit président Macky Sall. laaj moo tax moo ëpp loolu paasal. parce que président Macky Sall. Hmm. bi muy bañ ci assemblée bi. Hmm. pourtant am na ba pare de munu si dara te pourtant am na nu mu kaa tourné. Hmm. indi waxtaan. waxtaan ak opposition bi. day mel ni gouvernement de transition. nationale. day mel ni dañoo ànd di liggéey. te du lenn lu dul respecter les rouages des règlements et lois. Mmh. cest a dire que li nga xam ne ñoom ñoo ko teg comme règlement ak loi respecté ko rek. Mhm. daal ne opposition bi léegi nii la ñuy def. Mhm. mais malheureusement comme il y a de l'ambition démesurée. Mmh. qui semble-t-il tend vers un troisième mandat mais moo jur li xew ni yëpp. <laughs> lii nii yëpp lii yëpp yëpp parce que benn ambition bu ñu affiché boo xam ni kenn xamut lan la. en tout cas lenn lenn di kenn mënu leen koo reprocher mooy ne euh, xam naa ne bu ñu leen joxee consigne de vote daal ñoom ñëpp dinañ ko àndandoo respecté quel que soit alpha quel que soit ndax ànd nañoo ñoom ñàkk ñoo ànd d'accord nañu wala d'accorduñ ci consigne de vote moom ñoom ñëpp àndandoo nañ ko def ko ah et réussir nañu en réalité li ñu bëggoon ah def poussé nañu leen à mer nañu coow la bari na gendarme yi dugg nañ fa xeex nañu fa ñoom voté nañu ak seen ay 4 83 boo xam ne war nga ci dindi benn sax en réalité dañ ciy dindi benn waaw parce que dinañ ñëw léegi kaaw kaaw Aminata Touré mooy doon suñu deuxième point bi nga xamante ne moom la ñuy aborder mais bu fekkente ne au niveau de la de la de la régie ak euh, dogmala ak fi yàgg lool ba cest à te tal mais Mamy Samb. Mhm. est-ce que xam nga ni bi ñu toogee ci salle bi bu amoon vote normal ci dix milliards de chances de gagner pour le pouvoir. Mhm. ak dix milliards de chance de perdre ca dix milliards de chances de perdre ba da ngay da ngay dindi votu votu sanu yaay bi Aminata Touré. Mhm. rek carte gi lëbëjoo. dodoon lëbëjoo. jaxasoo complètement dodoon lëbëjoo bu baax sax. léegi nag peut cent ans. parce que boo xoolee évolution wu mbiru assemblée bi c'était comme genre. y a quelqu'un qui regarde qui suit regarde. jékki-jékki ne bon wax leen ñu def lii. impression la gars yi bal leen ñu def xaw ma nag ku doon def loolu xaw ma ku doon joxe consigne def leen lii defee leen ko nii ñu jékki-jékki dem ba benn moment député yi rek a fa ne. jékki-jékki plus ñuy avancer benn gendarme mu dugg ñaar dugg. mu mel ni ñuy làmbaatu. ñett ñeent commencé dugg. jékki-jékki mu mel ni benn peloton. jékki-jékki mel ni beneen. xam nga loolu mooy loolu mooy affaire bi donc comme si des gens des gens reçoivent euh, je sais pas ay ay ay directives pour dem dans un sens mais la si mënti am la woon woon ni na assemblée nationale bii man damay ñaan yàlla Sénégal à partir de maintenant yàlla bu nu nekkati ci logique gu nguur bu fiy falu même pour l'opposition actuelle mm-hmm. je ne souhaite pas que demain mm-hmm. incha allah rabi yàlla ñu yàlla may fekkee tal. amiin 2024 ñu ne opposition sénégalaise moo xam yeewi askan wi moo xam wallu moo xam yeewi wallu moo xam mais opposant gagné na. Mm. après ñu ne non assemblée bi il faut que il faut que nguur bi comme ñu ngi door a falu ñu jàppale ñu am majorité non non non. Mm-hmm. na nekk pouvoir contre pouvoir même bu dee waa APR ñooy nekk contre pouvoir ba non nañu presque na mel nii na mel nii 82 83 80 99 50 parce que bu gis nga budul loolu. li ñu defoon dinañu ko defaat il faut mu am un compte pouvoir buy ñàkkanteeg nguur bi pour que ñu nekk sur la bonne voie. jëla Abdou Mbow jëla Abdou Mbow ci image yi. Abdou dafa neex euh, <laughs> Abdou Mbow ak neex <laughs> Abdou Mbow laay reetaan yàlla na ko yàlla sàmm. mais Amin yaa rabbal alamin mais Pa may ma rek ñu ñu introduire sunu sunu journaliste reporter bi nga xam ne <laughs> euh, macha allah moom moo ñuy wàccal terrain ci lu baree bëri donc dañuy dégg tout le temps gars yi di wax Jérôme Dione Jérôme Dione ah, sonal nañu ko ci ni ñu koy taquiner macha allah tous les matins euh, également muy gérer sunu site bi 2A info point euh, ci liggéey bi taxawaay bi xale la mais macha allah mu ngi góorgóorlu di bay waaram bu baax ci li nga xamante ne moom mooy 2A TV donc baptême de feu pour la dalal la ñu bàyyi la nga nuyoo ak internautes yi. Euh, di la fay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokki internautes yi nga xam ne ñooy seetaan comme à chaque fois à cette heure la 2A bi nag. bon waroon naa yàgg toog plateau mais bon les activités de la 2A TV. que doo doo doo yow Jérôme ba ba bësal sa micro boobu ba xam. waa koy testé waatal nuyoo waatal ñu xool ba xam. Ah, est-ce yi duñ la gën a dégg parce que sànq dégguñu la woon bu baax te li ngay wax am na solo. Euh, Jérôme waaw donc Régie bu fekkente ne baax na rek ñu ngi dégg Jérôme bu baax ñu bàyyiwaat ko mu nuyoo ak ñi nga xam ne moom mooy sunu internaute yi Jérôme vasi euh, bon on a un petit souci avec ton micro excuse-moi maa ngi jégalu bu baax donc euh, ñu ngi dellu si waat ci yow le temps que rek sunu technicien yi euh, man a xool li nga xam ne moom mooy micro euh, Jérôme Dione Jérôme Dione donc ñu gis ko bokk ci li nga xamante ne moom mooy revue de presse française bi moom moo koy def lu ci ëpp ci site bi mais également ci sunu plateforme moo ñuy demal également sur le terrain dañu defal ay reportages de terrain yu ama am solo Assemblée nationale Jérôme itam moom moo fa demoon pas Assam mhm. dellu si waat sur le film de l'événement ci li nga xamante ne euh, raté nañu ko euh, lépp ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu xibaar information foofu foofule ca assemblée nationale coow la ca am daañu si dellu si waat ak moom en attendant ñuy ñëwaat ci point boobu avant ngay woo sa expert décentralisation bi euh, mais pas Assane hmm. diggante Mimi Touré ak sunu président Macky Sall sa yaay Mimi mer na keroog de. dafa gedd génn assemblée ba waaxu yamu waaxu nag tànkuy dëgër yamu ko booleel loolu mooy ndeysaan euh, xam naa ne am na lu ko bett ci tànneef bi am na lu ko bett également ci situation bi ni mu demee mais surtout je pense que li ko war a gën a bett mooy euh, consigne de vote bi nga xamante ne ñëpp dañ koo boolee doo respecté mais ni en réalité lépp li nga xamante ne liggéeyoon na ko yëpp ci wàllu élection législative yi malgré nag ay coow yoo xamoon amoon mais mu nangu dellu si waat xeex pour le président de la république Macky Sall na mu amoon yaakaar peut-être doon euh, am benn poste bu am solo ci présidence bu bu assemblée amaana sax xëy na être mu jiite ko mais vraiment am na combat bu am ci seen diggante Mimi ak ki nga xam ne moom mooy Macky Sall. xam nga xam nga si euh, kii mel ni Mbaye Anta nag. <laughs> da ngaa namm Mbaye Anta. kii du Mbaye Anta kii kii Mansour la. man ah Mansour Malick. waaw ah Soora Malick. waaw Soora Malick la ma ko wax dara ci bisu maam. Soora Malick la wallaay. bisu maam Abdou bi 14 septembre bi mooma mooma nag. sanu maam boobu nga xam ne est-ce que seetlu nga leen. Euh. sanu maam Abdou Aziz Dabakh Malick. radiyallahu taala yal na yàlla yokk ay leeram amiin yaa rabbal gën a kawee ci barkeem ci barkeem ci heure bu assemblée xewee turam feeñ seetu nga lool macha allah kenn du moom heure bu assemblée jotee na mu waxee woon ak assemblée ba turam feeñ kenn du moom yal na yàlla yokk ay leeram te taas barkeem si sunu kaw te def ci barkeem jàmm rek am ca assemblée ba ak ci Sénégal yëpp amiin Sénégal dox est-ce yi nga xam ne mu ngi lii <laughs> damaa bëgg nga commenté. non ko xoolal. internet bi mën a mën a seetaanaale di xoolaale image yi nga xamante ne xëy na yu bëri. non man xam nga ban laa bëgg ñu indil ma. seen waa ji meeru meeru Sicap Mbao xaw ma Jaksaaw xaw ma meeru. ban garaam waaw béy. waa waa ji béy borom lu vert la. kat ka sëgg ca ca ka bi tey doo fa tee waaye bi yéen bi tey du ngeen ma génneel image boobu ki sa ki sëgg ci ci ci ci une bi te sant bi borom grand mbubb bi mais kookoo gën a neex dafa neex réew mi dafa neex nag. moi je suis fier de cette opposition là. te lii mooy dëgg de. yow Pa Assane ñii dem ba ca assemblée xeex fa xeex bu rëy bii. ma ne la j'en suis fier parce que Mamy Sam xanaa xamoon ne am na am na am na nan laa ko mën a tuddee ci àdduna bi. Mhm. y a des assemblées yoo xam ne buñ la wanee la fay xew da ngaa daw. Mhm. parce que ci principe bi la c'est-à-dire lii du yoon nga ne non dama koy def ñu ne la du yoon nga ne da nga ko def par force. Mhm. am na koo xam ne danaan c'est pas grave. Mhm. mais am na koo xam ne danaan pour l'intérêt commun l'intérêt général l'intérêt national lii il est hors de question muy jàll. yow nga defe ni député yi bu ñu fi nekkoon ba ñuy voter cette loi là catastrophique sur les OGM soi-disant. nga defe ni bu fi ñuy nekkoon lii loolu dana am. vote OGM boobu nga xam ni nga xam dañ koo def majorité yëkkati loxo ñëpp ne nii ñu ne ok. Mhm. mais bu fa député yi nekkoon du am. te député yi il faut que ñu def proposition de loi pour récuser cette cette catastrophe là d' OGM soi-disant nga xam ni que daanaka ñenn ñi sax njort nañ ni dëpp mu ngi fi depuis lustre. Mhm. mais dama lay wax benn affaire. Mamy Sam. Mhm. on est toujours gêné de voir de hautes autorités. des représentants du peuple. Quand même. de l'État en général. egg à ce n on en moom kenn du ko discuter. quand même quand même métit la. mais mmh. au-delà à l'impossible nul n'est tenu mami mami à l'impossible nul nit yow yow doo mer bu baax maa dàq mer ñëpp <laughs> na la nit tooñ nit lañ et humain li nga kaf la reetaan fii na la nit tooñ dootu ko defati de mu ngo dina am coow lu day bi ñuy waaj dana di màggal Touba bi ñuy waaj a def jérém naka nit <laughs> jérém naka nit tooñ li yëg-yëg la mbiram nit la. waa léegi Massa nag tooñ 17 millions de sénégalais. wala boo ñoom boo ko waxee ñu ne la non il faut pas généraliser il faut pas dire tout le monde ñu ne leen une bonne partie des sénégalais waa léegi bu boo dindee 17 millions ne leen 1 million de sénégalais sont fâchés. Mm-hmm. boo merlooyee benn nit mu mu yuuxu. Mm. waaw boo merlooyee 1 million de personnes nu ñuy def. Massa nag lu ëpp loolu. xanaa dañuy sar xolle kon. sar xol sap la ñuy yuuxu sa kaw la noo def. loo kaa barki sëñ Bamba. ci bisab màggal gii ñu jëm macha allah wallaay macha allah Jérôme. Jérôme ay ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga nuyoo yow dugg sil rek. non mami xam nga Pa Assane des day yàq concentration nit quoi. dëgg la da ngay concentré ci sa élément. Pa Assane wax loo xamante ne moom teel a yaa xam loolu doomu massa ñun ñi nga xam ne moom la ñuy dund bés bu yàlla sàkk. ah si rek nuyu nuyu nuyu waaleel internet yi. Euh, comme ni nga ko waxee sànq maa ngi nuyu bu baax a baax